aimé vidéo bi daal di koy partager lolou dina si am solo te dina tax contenu bu bees bu ñu duggal nga daal di sini mëna jot bokk ñi koy ñëk sétan mo ngi nonu ñëw nak kat vidéo ak ay révélation yu ama am solo ñenn ci ñi nga xam dañ leen wax ay journaliste ak ñi nga ño fi andon ak ki di Macky Sall jamono bi nak légui ñi ngay woy di def ay jabulisation yu toy war nak jëmele ko ci premier ministre Ousmane Sonko. bu ñàkk dinañ si ñëw waaye bala ñoo ñëw si loolu nag xibaar bi nga xam ne nag eh, ñëpp gisandoon donc mu bokk si li gën a fës tey jii nii ki nga xam ne nag eh, moo di eh, Cheikh Yérim Seck moom nag jamono bii garde à maanaam li koy topp nag mooy pour division de fausses informations et diffamation maanaam daal joxe ay information yu wérul ak taqal doomu aadama moom Cheikh Yérim Seck nekk journaliste boo xam ne ñu bari nag gis nañ doon faral di yëkkati ay kàddu yu doy waar nag ak ay révélation di ko jëmale si gouvernement bu bees bi moom nag jamono bi kon yoon daan na koy teg loxo mu ngi noonu ñu bàyyi leen nag ak vidéo bi nga xam ne war na lañ ko dégtal yaa ngeen jëf. ne yenn yi ngeen di jël di ko teg ci deram te ngeen di ay julit man est-ce que ay julit ngeen sax est-ce que wóor na est-ce que sax wóor na parce que yenn yi moom julit du ko def mbañeel warta mën a egg fenn fi yenn yi c'est trop dafa ëpp soxor da ngeen soxor quoi vous êtes trop méchant moo tax yàlla teg leen lu mu leen teg nañ dem rek ngeen ne suñu borom ngeen di xeexal dem leen gis nga à travers jëmm Ousmane Sonko bi ngeen ne na ngeen di xeex ak moom xeexoo leen ak moom de suñu borom li mu dogal ci mom moom ngeen di xeex te loolu dara ngeen ci mënul chaque jour da ngeen koy xëy gis mu leen di tim te du ngeen ci mën dara incha allah loolu mooy xew waaw loolu moom béboo na ngeen ko xam ñun gis nga ñun ñun amul lu ñu déggul amul lu déggul ñun nga naan ay partage ak nangam lan nga gis fan nga gis lu ñuy partage sticker da ngay gis ay sticker de ak ak yenn yi nga xamantene mom ngay gis gis nga yoyu bu taxé yow nga jël accusé ñu patriote yang lay dégg li ngay wax ni dafa graw mais amna fi lo xamantene jot na fi am fi rudde yara xam na lu fi am ci ben tata pourtant ñepp xam nañ ni ay fen la légui mujuna leer loo xamante ne dara du ci dëgg ngeen baal ma ci kàddu googu ma yëkkati nii ah dara du ci dëgg dara du ci dëgg dara du ci dëgg amul lenn lu ciy dëgg ah histoire dem na ba wane ne lii mu dëgg loolu dina leer mi ci suñ kanam. mais ñuy ñiy défendre sàcc yi nag diw sàcc na ay rapport ay rapport yu Macky lu commandité rapport yi épinglé nit ki. waa ah, yéen sàcc bu ñu fa woo na ngeen génn taxaw naan dañuy jaay doole mais yéen ñiy défendre ay sàcc yéen moom saa waay lu ñu leen war a def kon hmm? waaw défendre sàcc de jéegi jo buñ ko woowee ay rapport ako épingle rapport épingle xaalisu Covid bi fii nit ñi dañ ko fàtte mu talamba yi fan ngeen nekk fan ngeen nekk am na loo xam ne politique jaru ko quoi man de politique jaraluma ko man moom saa lu nit def lu nekk. ak fo mu di na dinaa la dénonce mais dama ne bu ay nit sàccee alalu réew mi Macky Sall santane ay rapport ñu audité ko ay audit buñ convoqué ñi ñooñu ngeen ne ñi ñooñu dañoo ki hmm? bu gouvernement bi gisé ay ay luwal bu gene wax ngeen ne du deug yow lu ngeen bëgg lan ngeen bëgg ma xol la est-ce que réew mi lañ ñor du question sens contraire yéen mbañal ngeen mbañal mbañal gi nekk ci yéen moo tax yéen mun leen mun leen a ràññee mun leen a na dara mun leen a na dara dama ne ay nit yoo xam ne dañ doon bind téere ci ñoom di leen fenal laa wax ñu nekk opposition Cheikh Yérim Seck Bougane Gueye Dany six mois bi nguur gi faloo ba léegi man d'accord ma ñuy convoqué nit jaay doole d'accord ma ko tut ma ko mas a d'accord mais acharnement aussi teg ko ci dëgg boo amee looy acharné wu ji ni da nga koy teg ci dëgg mais acharné wu ci ay tappale kese. Cheikh Yérim Seck bi ñuy passé sosoo ba léegi ah mi ngi topp ci seen ter bi di nga ñëm nga ñëm yi di leen fenal. waaw nguur gi changé na sénégalais yi ñoo tànn ñii fal leen loolu mënuñ ci dara seen xole buñ bonee lañ dem kalaame ji ko yàlla quoi mais bëgg continuer la même méthode bi nga toppee woon nit ki bi mu nekk opposition toog di sos rek fen rek. di wax loo xam ne dara du ci dëgg waaw léegi bu la procureur wooyee ngeen dem jël ba dem dem kii ko ba ko taf Sonko quoi nga naan li nga doon xeex mais li ñu doon xeex moom la ñuy continuer di xeex ba léegi ah waaw bañ koy xeex tamit ña bokk ci ñoom bu ñu defee ko su dul noonu dañ leen di woo jóbbu leen kaso mais fii tëj nañ fi nit kaso mooy mooy lu gën a kii mu lii boobu yéen a ngi fi woon di ko applaudir gis ngeen yàlla yàlla du nit nit looy def teg ci deug nit man nga critique amna na ñu fi nek dinañ critique nguur gi ba xey dee duñ mësa and nguur gi te kan du leen mësa tej kasu bu ah. bugaan ngay dani 6 mois muy sos di sonko lo di saga gouvernement bi saa bu génnee di wax di saga aje kep ku ko ma rek demal nga pare wala moo dee ñàkk jom gu metti giñ ci andal ku fi sos say sos tok internet bi fenn say fenn gaan xoolal su procureur jógee di yone ay ndaw ñu wala nga naan Ousmane Sonko ni Ousmane Sonko naw mais sa yeen yéen lima la wax gëmuloon ne yeen ñi ñoy réew mi diko ko doxal ko ngeen da ngeen di continuer sen insolence bek sen arrogance. mu ay joye gi yu de. waaw lépp ki fi wax dal lay wax lu ne nang ko assumer rek waaw ko poké wax li lo ñi mom doole bi Macky Sall doon jaay ñi ñi xalaaw duñ ko jaay nit ñi mais képp ku fi yaakaar ne timit la nga leen wax bañ nekk opposant da ngay continuer diko ko wax di leen sosal di saga amo ben respect ñom bisimilah ku yaakaar ne loolu dana continuer nekk ci. waaw donc xam nga euh, ñun moom wax dëgg yàlla on est wax dëgg yàlla <laughs> ñun moom wax dëgg yàlla affaire émotion dañ cee doxul ndax wax dëgg yàlla fekkoon ci émotion la ñuy dox kon yaakaar naa ne kon gars yi naxoon nañ ñu ba yaakaar naa ne li ñu bëggoon ci Pastef ñu am ko waaye nag xam li def ak xam fi ñu jëm li def tamit ñu teg ko ci xam-xam teg ko ci idée yu leer yaakaar naa moo ñu may tey ñu egsi fi ñu jëm. ndax yaakaar naa ne li ñu subir ak trajectoire bi ñu jaar obstacle yooyu yëpp ak maanaam gars yi li ñuy tegaloon ak malgré doole bi ñu yoroon ñoom suñu xel rek lañ yoroon kese moom lañ doon jëfandikoo tey moom ñu indi fi ñu nekk kon loolu yaakaar naa ne wax dëgg yàlla ñun affaire émotion moom doxuñu ci mais dafa am euh, ñoo seen ni maanaam yaakaar naa ne di jëlee say source ci ñoom dama jàpp ne vraiment Ah, boo bëggee maanaam li ngay wax débat diine ak débat xam-xam say source waroo ko jëlee ci ñoom quoi waroo ko jëlee ci ñoom ndax ñoom ñëpp xam na lii seen liggéey c'est des mercenaires de plume dañuy marchander seen ay plume ak seen pour ñu génn wax sax dañ ci dañ koy marsande ko waa ñoom ñoom loolu mooy seen métier te nëbbutuñ ci làqatuñ ci ñooñu nag boo bëggee ñu waxtaan ci xam-xam débat diine débat de fond dangay ngay source da nga koy jëlee feneen mais du ci ñooñu nga koy jëlee wax dëgg yàlla man jàpp naa ne yow booy booy vraiment boo bëggee wax ili débat bi de sa source waroo ko jëlee ci ay ñoo xamante ni yow leer na yow yaa gën a xam ne ñii ñoom li ñuy duñu ay waxkat seen wax warul loolu rek lañ fa nekkee ay ñaata contre vérité la ñuy xëy di raconter di midi au quatorze heures mais ñooñu nga bëgg jël seen wax teg ko fii naan nañ ci def débat di de ban débat di de boo bëggee ñu débat di def xam-xam da ngay loo xamante ni source ba dañuy xam ne vraiment ñu am crédible ñu crédible lañ loo xamante ni boobaa ni ñi danañ sawa waxtaan ci mais ñoo xamante ni maanaam moom seen métier seen métier ñëpp xam nañ ko mais wax dëgg yàlla ñooñu booy indi say euh, jël seen i ay wax wala seen ay kii nga jëlee ko ci ñoom indi ko tegal ni ko naan nañ ci def débat di di wax dëgg yàlla ñun duñ perte suñ temps ci loolu